waaye balaa loolu euh, dama bëggoon dama la bëggoon jaal jaal Sénégal yëpp mm, mm, mm. ci euh, disparition suñu mag ji wala suñu rakk ji rakk la ci man rakk ju baax muy Sidi Lamine Niass nga xam ne tey la ko suñu boroom woo pour mu uyu ji ko ñu koy jaale famille mm-hmm. di koy jaale waa Walfadjri le groupe Walfadjri mm-hmm. di koy jaale képp kuy jullit mm-hmm. ak euh, tout tous les pays parce que moom defe naa jëmm moom paase na Sénégal lii nag lu ñu bett la ñu war ci bàyyi xel mm-hmm. xam ne yàlla suñu borom moom mooy yëpp àddina si nag du dara mm-hmm. lii wonati na ko kon nag euh, nañu jàppante mm-hmm. di def lu baax def lu baax ci la moo am solo kon nag encore une fois maa ngi jaale Sénégal yëpp di jaale Afrique yëpp ci euh, suñu mbokk mi fi jógee yàlla na fi saraxam yàgg te yàlla suñu boroom teeru ko ci àddina ji gën a kawe